di leen wàccee seen wàccuwaay di nuyu Ismaïla Ismaïla Fall xam naa danaa ko kalaamee mbooloo mi yëpp ndax kurusu Seyda Zeynab gi ci loxoom la nekk ma koy wër mu naan ma mi ngi France loolu moom danañ ko lijjanti ma ak moom bu noppee ndax newoon naa man boobu rek laa doon wër te nag ba léegi jaral na ma dem ba France jëli xam naa buñ noppee loolu danañ ko lijjanti tey laa jot xibaar boobu ndeysaan ñu ngi koy ziyaara bu baax ko am taxawaay la ci daara ji yàlla na ko yàlla fay yiw soxna Zeyna dafa bokk ci jigéen ñi yàlla di wax ci alquran wa id qaalat almalaikatu ya mariam boo jëlee laaya jooju dindi fa turu mariam dugal fa Zeynab mottali laaya ji mu mat ko inna allaha wa tahharaki wastafaaki ala nisaa il aalamiin yaa maryam uqnutii li rabbik wasjudi warkaci maa raakiciin soo fa dindee turu Maryam dugal fa Zeynab laay ji jot ko yàlla dana yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay yëgal ne am na jigéen ju tuddoon Maryam man maa ko tànnoon mu nekk tànneef Zeynab Fall tànneef la woon. ala nisaa'il aalamiin Zeynab Fall tànneef la ci nisaa'ul aalamiin waxuma sénégalais yi de waxuma maliyen yi de waxuma gambiyen yi de waxuma africain yi de mais ala nisaa'il aalamiin bu ñuy seet jigéen ñi nekk tànneef ñu def concours nga yóbbu fa Zeynab mu gàdd raaya loolu la ko yàlla defal xoolal mission bi yàlla chargé yeneen ci yàlla saydatuna mariam saydatuna mariam daf ne uqnuti li rabbi del jaamu sa borom wasjudi sa jëbi dee ko sujjóot ci suuf di ko sëppal yàlla warka'i ma'a raaki'iin del rukon ànd ak mooy rukon ya boo génnee foofa turu mariam zeynab bokkoon na ci jigéen ñi sàmmonteeg jaamu boroomam daan naafila di rukon ba ci naafilay guddi danañ ca dikk Zeynab à l'âge de quinze ans la ko bàyyi seex bu dénk sang bu baax boobu di sëriñ Samba Sarr boobu ñoom ñaar ñëpp ñu ngi caaro yi may nañ ko diir bu yàgg mu nekk biir kër bay bu sëyiwul mu nekk ci biir kër gi di gérer daaraam di gérer sëyam teel nekk ku ku ku li ñaan jigéenu responsable waaye mu teel a miin maye ak joxe yaa xam ne nee da daan génn ñu jox ko dara mu dem école ba maye ko danaan maye ba xale école bi dañ koy topp si ba ci seen biir kër di ko ñaan di ngeen gisee moom ñi doon ko maye ñu naan mayekat la bi muy nekk xale la nekkoon ci moom yaa xadi nee na daf ko daan dóor sax ci man a maye papa ji mooy mujj ne ko bàyyi ko rek loolu lu baax la loo xam ne nii tàmm nga maye lool ngay màggaale ba boo ko màggaalee mooy nekk ci yow nee na lépp lu nekkoon ci loxoom nit bëgg ko xañ ne ko boppam jox ko moom soxna béy na waaye mu teel a bëgg joxe mu teel a bëgg joxe ñam euh, seen mag bi nekk Arabie Saoudite nu mu tudd Moustapha Moustapha moo daan wax ne Zeynab loxo bi cunwaar moo ci na ndax mënoon a togg gu mënoon a togg te mën a togg gee balaa kontaan nit ñi bari mu togg lu bari di séddale ñëpp lekk ba suur ci lay kontaan te boobu xale bu daw la nee nañ booy juróom bu góor dégg ngeen mu nettali ko ba tàyyi te dina feebar lu yàgg waaye lu mu daan lekk lu ci bari moom moo ko koy toggal di ko ko jox tabe boobu mu tabe woon moo ko topp bàyyiwu ko ba mu nekk mag danañ ci yegg ci bu ñu yeggee ci témoignage su Ndeye Fatou magam day faatu faal dañ ko laaj ne ko kan mooy Zeynab mu nañu ku bëggoon jàng ku bëggoon jàng ndax ñoom ñaar ay tofalamu ñaari at la ko ndey faatu magee ñoo daan ànd di jàng yaayam nettali na ne bi mu jàngee ba ustaas bi ne leen laaye jooji ci sóoratul ahzab yaa ayyuhan nabiyyu qul li وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن nee na keroog jour bi leen ustaad bi waxee loolu ca école arabe ba lañ ñibbisi ci kër gi ne yaay utal nu kol dañuy muuru moom magam day faata nee na yaa nee na ñoo ma njëkk a muuru samay doom bi ñuy muuru jëlaguma kol teg ko ci sama kol nee na ma ne leen ah xale yu toll ni bi di muuru ñu ne ko oustaz ba nee jigéenu jullit dafa war a muuru nee na keroog bañ déggee aaya boobu noonu ne Zeynab muuraayam dañul ci boppam ba muy ji yàlla te boobu ay cinq bu ko amee ci lay toll six ans dégg ngeen mu ko daan nettali ne fàttalikuwul bi muy jël kol di ko teg ci boppam ñaata at laa am ndax am ndaween boobu kon beneen leçon ngi noonu mooy jigéen dafa war a muuru farata la du ngëneel du luñ sopp mais farata ci bépp jigéen mu jël kol teg ko ci boppam ndéem jullit la yaa ayyuhan nabiyyu la yàlla wax qul li azwaajika waxal say soxna wa banaatika ak sa doom yu jigéen yi wa nisaa'il mu'miniina ak ku ne gëm na la ku ne gëm na rasulullah yëpp ñu ne alayhi na min jilaabi bii na seen xol bu mu teggee ko di ci seen bopp zalika adna an yu'rafna fala yudayni mooy tax ñu ràññee leen ak ñeneen jigéen ñu dul jullit ba kenn du leen lor l'islam waxul ñu musóoru de waxul ñu jël fulaar teg ko ci suñu bopp yi de waxul ñu sol ñu teg ay kodu sinwaa de a alayhinna min jalaabibihinna muuru la wax muuru li ko Zeynab doon defee noonu la ko lislaam digle